اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تقريب أو تقديم أو تاخر أو زيادة أو نقصان أو تأويل على خير ما أنزلته أو تعجل عند تلاوته أو كسل أو سيق أو كسل أو سيق لسان أو قف بغير وقت أو إدهام بغير مدهم أو إسهال بغير بيان فاطلبهم منا على كما والكمال معظم من كل ألحان وارزقنا فضل من خر مؤديا حقه مع الأعداء وقلب ولسان وهب لنا بالخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبنا قبل المنايا من نوم قبلة وكسلان ومنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر والنكر ومن أكل ديدان يبيض وجوهنا يوم البحث واغتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على شرر واسكن وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا الليان اللهم اجعل عريانا عظيم ربيع قلوبنا وجل احزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وسعينا إلى الجنة النعيم اللهم اجعلنا نسينا في الوحدة ومساحبنا في الوحدة ومسغابنا في الزلنا ومسباحنا في الظلمة ودللنا في القير ومنخسنا في الفتنة واعطنا بي من ذاك وأخواي وكيد أعداء يا رحمن يا رحيم اللهم أختم بسعادة آجالنا وحق بزيادة آمالنا فعرب عافية هدونا وآثالنا وجل إلى رحمتك مسيرنا ومآلنا وسب سجال عوفك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا وثقة بك سكرنا واعتقادنا وأمن من الجوع وخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بارك سوى ما قرناه والنور ما تلوناه لرؤي سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحاب رضوان الله تعالى عليه أجمعين ولأرواح آبائنا وامهات ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا اللهم بارك ما قرأنا ونور ما تلنا هدية لروح شيخنا أحمد بامبا اللهم بارك ما قرأنا ونور ما تلنا هدية لروح شيخنا أحمد بامبا ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبي وإمام المرسلين واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة شهابي يا سميع واغفر لكل ذي تعلق بها واقع عن سعادتي يا ربي وتبنا وقوينا وكلنا وحبلنا حسن ختام ربنا وصلي على النبي وسلم واقضي به حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barke borom Tuubaa addi Sëriñ Tuubaa joxe ndigal ci safar gi ne digal na képp koy murit ku ko mën nga jàng ñetti kaamil soo ko mënul nga yëkkati sa alal jox ko la kon ñu ni ci safar gi waa Caajaay jàng na ñetti kaamil yéene ci dëkk bépp yéene ci mboolem kuy taalibe nekk ci Caajaay te nga amoon yéene jàng ñaati ta te mënoo ko ñun jàng nañ ko fasaale la ci ko fasal ci waa dëkk bépp kon ñu ngi ñaan yàlla nañ ci daje ngërëmal suñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullah Alaikum mbokki tiajay di niou di len sante ci mbokki talibé yi ñi ci safar tiajay 2023 fi ci place publique bi taw ak suñu yaay Jaara cissé mi ñi jawriñ ci wañ wi di ko diko sargal diko ko jox cadeau gi rek mu wax ak mbokku talibé yi ak mbokku wañ wi sonna ci ñu ngi ngi leen di delloo nuyoo bu baax di leen ziyaara di wax ons billahi mina seytaane rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin waaw bi ngi sant yàlla jul ci yonte bi ñu ngi sant waa Caajaay bu baax a baax a baax cant goo xam ne am na fu mu commencé waaye am fu mu yem ndax lii mbooloo moo ko man bi ngeen koy waaj metti na daaw heure bii ñu ngi koy def ngeen ñëw fi comme nii ren ñu ñëwaat fi kon nañ santaat suñu borom di sant Serigne Touba di ñaanal sëñ Sam Mbacke mu dekkee àjjana firdawsi yàlla teg loxo ci njabootam bi ñaanal sëñ Mountakha Bassir mu yàgg fi ñëw di la seereel na la nag caajaay moom benn bopp lañ mas a nekk waaye bii moom da koo gën a firndeel ndax lii Baye Baara Ndiaye def na ko fi ñeneen ak ñeneen def ko fi Baye Mbaye Ngom ñeek nekkoon ci ak sama nijaay ñaay ñoom bii moom dafa joggati te ñu ngi ñaan suñu borom mu gën ñoo dëgëral ba ñu am caajaay ca kanam ni dëkk yëpp amee ca kanam Touba amee ca kanam ñu ngi ñaan yàlla caajaay amee noonu ca kanam te gis nañ pësteef gi jëwriñu góor yi jàmbaar lañu jëwriñu jigéen yi jàmbaar lañu ñi topp ci seen ginnaaw nag mention spéciale ndax ñoom ñoo fa kastalut fa kastaluñu kenn lu jëwriñ wax ñu ànd caag moom lu jëwriñ ma tisi la wax soxna yi ànd ceeg ñoom caajaay gépp génn nañu naaj wee tàng waaye caajaay gépp génn nañu juróom benni waañ ñoo fi nekk te li ci nekk ci mbooloo kenn xamul nu mu sas yi ñu doon joxe lépp matale nañ ko ba nit ñi di def ay dabaatal muy jinaar ba nit jàpp nam xar tungoon ko ne ko dama liggéey la sëñ Touba loolu lañ doon séntu ci caajaay gis nañ ko am mbokki taalibe yi comme li ma wax léegi rek ma bu ñu jógee fii nañu nañu commencé waat xaar bu déwén bi ndax ren kat am nañu ñaari nag ak xar ak ay jinaar waaye déwén bëgg nañu am fukki nag ndax daaw benn lañ am bu xaw a ndaw sax ñëpp wër ko xeeb ko lool ma ne commencement la première édition la ñu con nañ leen continuer ren ñu am ñaar kon ñu ngi ñaan yàlla déwén ñu am fukk def ñaar fukki waañ togg ba yóbbu ci suñu ginnaaw bëgg nañu bu déwénee ñu gaaree fii 4 x yi di yem di yëpp xéewal yi ko yóbbu ci yeneen dëkk kon nañu góorgóorluwaat takkuwaat te xam ne nag sëñ Touba mii fay ku ko lebal ker mu ku ko guddi ba bëccëg mu lebal mu fay la guddi ku ko lebal benn mu fay la fukk suñ borom moo ko ko may waaw te xam nañ ci dara ndax defe naa ne wax naa la daa wax la ren kon déwén mooy raw incha allah nañ góor góor góorgóorlu daal laay wax ñëpp rek. kon mbokk taalibe yi ñu ngi jàkkaarloog jëwriñu lees moom mi nga xam ne mooy jëwriñu waañ mi defoon nañ ko daaw fekkee ko ren jëwriñ ñu ngi lay siyaar. waaw maa ngi leen di bu baax. Euh, ah, naka safar gi ren. waaw safar gi nak nag wax dëgg fa macha allah par rapport ak euh, daaw mais nag dañuy di sante Serigne Touba waaw di sant euh, sëñ Mountakha Mbacké Bachir di konya ñaan mu yàgg fi lol te waaw di sante bu baax sëñ sëñ Modou Mbacké bu Sam sunu xalifa fi si di konya ñaan mami it mu yàgg fi lol lol te waaw di sante bu nak wah euh, waa Caajaay bu ma wa waa Caajaay baawuñu kenn ndax képp koo xam ne da ngay yeewoo Caajaay rek moo xam wala chrétien it yaa ngi fi ci ci ci ci bërëb bi ñu nekk mu ne julit nag na may tënk ñëpp rek maanaam murid ak xaadir ak laayaan ñëpp a ngi fi chrétien yit ñu ñëpp ñenn ñi ñu ngi fi ñoo nañu it indi seen addiya loolu nag ñu ngi ñu ngi sant bu baax ndax waañu ren moom wax dëgg macha allah moom wax dëgg la lépp taw fexe na waaw yokkute yi nag ah daa fës ci ci lépp waaw fës na ci mbooloo bu bari fës na it ci ci maanaam ci wàllum gàtt yu ñu war a yu ñu war a ren di lewetal di mois boo xoolee ren daaw defoon nañ benn nag ñaar am nañ ren euh, daaw benn nag la woon ren ji am na ñaari nag am nañ ñaari nag am nañ xar am nañ plus de presque daanaka trente cinq ginaar yoo xam ne ni euh, daa yokk woon boo xoolee daaw benn nag la ñu amoon ak ak ginaar waaye ren moom am nañ ñaari nag benn xar ak trente cinq ginaar 37 du moins 37 ginaar yoo xam ne ni wax dëgg fi yàlla mbooloo bi ñoo ko jëf mbooloo bi ñoo ko jëf mbooloo caajaay ñoo jëf-jëf ji waaw boo xoolee daaw ñu ngi ci woon euh, nombre de 4 waañ actuellement ñu ngi ci 6 kon day mel ni la woon daaw ren yokk na 2 ci waañ bi gàtt yi tamit yokk na boo xoolee daaw benn nanga amoon am nga ñaar am nga ren xar Euh, ak i ginaar soixante 37 euh, ginaar loolu rek ak cant la loolu lay wane la fu mu toll nii maanaam euh, cant gi Sëñ Tuubaa nangu na ko waaw nangu na ko ci ndax passif da cey feeñ jëf ci da cey yokk mbooloo bi da cey yokk xéewal gi lépp da cey yokk loolu nag dañ koy sant Sëñ Tuubaa bi nga xam ne moo waral lii ndax boo xoolee loolu lépp da dëxañu wu ci màggal Tuubaa gi ñuy waaj ndax bu ñuy safar rek sa xel lépp day dem ci màggalu Sëñ Tuubaa gi kon loolu daa daa daa daa daa wonewaat ne màggal lu ci waaye def ren bu déwénee day ful safar gi moom wax dëgg fa lépp lu ñu xalaat lép loo xam ne dañ ko dañ ko cee xalaat moom romb na ko romb na ko ci ay xéwal waaw li xéwal yi lu mu ci yokk mooy euh, maanaam lan ma si gën a taw fiixe la ma si gën a neex sax mooy jumaa yi nga xam ne dañ lañ leen ciblé caajaay ndax boo xoolee daaw ci benn jumaa rek la ñu yemoon ren dañuy dañoo ren suñ tubaab dëggoon na dañuy yokk jumaa yi yokk nañ ci lu mat plus de 4 jumaa yoo xam ne dañ ñun ñu leen war a jox añ loolu nag dañ koy sant sëriñ bi loolu dañ koy sant fi ne loolu day wane ne bennoo guy waa Caajaay bëggoon bennoo bi bàyyi Sëñ Sam Mbàkke bëggoon loolu mu ngi ci yoon te mu ngi euh, daanaka màcc na ko mboolo bi ñëw nañ benn yi yokku na benn yi moom mënu mu laa lim xeetu benn yi fi war a ne waaye daal jàppal ne lépp loo xaar li nit war na koo jëfandikoo rek Caajaay gi ren togg nañ ko loolu lañ koy sant Sëñ Tuubaa barkeel taalibe yi moom mënoo koo lim mënoo koo lim ndax euh, damay jox kenn rek ndax moo ma joxee kenn daa joxe naa ñëpp te amaana sax waruma ko tudd mais foog ma ko daa def lu rëy muy soxna soxna soxna Ndiaye soxna Asou Ndiaye du moins li mu def ren loolu daal suñu ñëpp joxe na nag joxe sombi joxe soble joxe pomme de terre laaj joxe daanaka xaaju lépp moo ko joxe t-shirt dañuy sol sax moom moo ko joxe kon moom da nga ko ci sant. am na ñeneen nag bari nañ maire bi dafay moom it joxe na cinquante mille maanaam ñi joxe ay xeet dafa moo bari. bari na bari goo xam ne moo ci ko ci lim rek da ngay juum mu naa lañ tëxëñ mooy mention spéciale nag waa Pultoog toog ren dañoo ñëw dooleel ñu loolu lay wane kon caay ak Pultoog lenn képp lañ mënoo leen séddaloo mënoo mënoo leen xaaj xaajaloo euh, lenn képp lañ kon euh, caay gépp sant nañ mu ne caay sant nañ mooy naa mënoo gox boo gox boo xalaat caay rek mu ngi fi gox boo xalaat caay rek ñaa koñ la rek ñëw na ci toog yi loolu dama ci dama ci relancer waat ñëpp ndax ñu ngi ci daaw am na ci liggéey bu ñu ci def liggéey boo xam ne mucc ayib la bañ ko defee nag liñ ci génn ci xaalis kenn xam ne mu toll waaye nag ren dañoo bëgg képp koo xam ne da ngaa nekk caajaay euh, daara Xidmatul Xadim buntu da ko ubbi pour ñëpp amul kii ki ce ñëpp ñoo ko bokk képp koo xam ne da ngaa nekk euh, Arlem Arlem am na am na am na comité xaaxam am na comité askan am na comité brax am na comité sang jël am na comité Pultoog gi am na comité euh, Dakar gi am na comité Askan am na comité Magadan am na comité képp koo xam ne da ngaa yeewoo ci gox yooyu noonu layal jorin ja bu ne la maa ngi nii chaque fin de mois francs la lool yomb na ku ne at mi daanaka 10 000 la boo ko indee fii lool la ñuy boole boole lii boole ko ak liggéey suñu toit yi ne ci dëkk bi loolu rek loolu loolu rek ku ci sax rek yaakaar naa lépp loo xam ne bëgg na ko caari na ko ci mën a am surtout nag liggéey liggéey liggéey ne ci jumaa ji xam ne ñun ñëpp la ñuy jullee fii ñu jullee it loolu lépp ñun sunu 1000 francs yi ñoom la ñuy daje da ko ci def kon naxuñu kenn lu waaye indi rek sa dërëm boo ko indee ci liggéey sëñ Tuubaa bi la jëm ñu ngi jàkkaarloog jëwriñu Ahlou Café sëñ son yi bu ah, di ko nuyu di ko siyaar sëñ bi ñu ngi lay siyaar lay siyaar bu baax monsieur Lalo yéen waa Ahlou Café ah, naka ngeen gise safar gi waaw ñu ngi sant yàlla bu baax julli Yonent bi di sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di ñaane Serigne Mountakha mu yàgg fi lool tànn wér noonu lañ koy ñaane fa day bàyyi Serigne Mountakha Danda suñu borom yàgg bàyyi ko fi lool tànn wér ak mboolem jabar suñu Tuubaa gi yëpp ak mboolem jabar maam Cheikh Rafal gi di nuyu ziar baax sama sëriñ Baye Lam Mbacke di ko ñaanal mu yàgg fi lool tànn wér di ñaanal mboolem njabootu Baye Sam bi yëpp Serigne Modou Mbacke bu baax dëgg yàlla euh, liggéey bi nga xam ne ay at a ngi nii depuis toll nii bu ñu xoolee dans cinq ñu ngi koy taxaw ci waxtu yi nii bu ñëwee ñu indi suñu suñu man mën ak suñu lépp bokk kook bokk taalibe yi ñu liggéey ko Serigne Touba Xaadimu Rasuul léegi nag euh, café gi moom dëgg yàlla ñu ñoo ko yàgg di taxaw ndax euh, du at yi yëpp ja boobu bañ koy taxaw boobu jamono melul nii boobu affaire bi yegguñu fii ba léegi suñu borom yegg ko fii nga xam ne loolu day wane ne liggéey Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam kese la am daaw boo xoolee euh, dañoo waxoon ne kafe ngoon kese la ñuy def mais ren dama dama dama dama jël sama initiative bopp ne dañuy defar kafe suba def café ngoon te incha allah euh, noonu la amee ñu ñaan na suñu borom dafa ñu si ndam bu baax a baax a baax ñu ànd koog mbokku taalibe yëpp. équipe baa ngi nii wax dëgg yàlla ay mbokku taalibe yi am passef leen euh, ay mbokku taalibe yi jàmbaara di bëgg Serigne baax waaw di ñaan nag lii suñu borom gën koo ful ñu yàgg koo teewee ay ati ati at. waaw jàg ko ànd ak mbokku taalib yëpp ak kilifa diine yi ak kilifa aada yi si dëkk bi yëpp ndax kafe rek ngeen defar déedéet ran du ñu yem ci kafe kese lu ñu wax rek liggéey Sëriñ Tuubaa moom amul tànki ginnaaw amul tànki ginnaaw tànki katam kese la ñu am daaw boo xoolee dafa ñoon was dafa ñoon ataay dafa ñoon meew dafa ñoon dara waaye ren loolu yëpp dañ ko bëgg a programme incha allah euh, di ñaan suñu borom nanguñu liggéey bi te yàq laqal ñu ko fi yegg yeggul ci barke Cheikh Bamba Allah. الجميع لسلب سخريا عمر يرى قاتلين بأوان داني بلا سببنا مني قبلتك يا قهر يرى قاتلين بأوان داني بلا سببنا مني قبلتك يا قهر يرى أبتلي منك سوء نرفع مسألتي فلن شكري يا رهاب يا لي قدرة أسمع نجا يا من دوا عمري حب ليل الحياة رضاه يا أسواء ونسلفنا هيا الذنب يا رحمن بجاه من سمعت عثمان ثبتني يا الله يا حنان بجاه يا بر يا منان مدد لي ذنبي الجنان عليما ربي بالمغفي وزر رداءك إلى علي عليم ربي بالمغفي وزر رداءك إلى علي لجبل من نفس وعمل وادب مردي يا ربي من يتقبل سعيد شواردا إلي سعيد وليزوى ما زد من ما فيه يا رب شواردا إلى العلي وليزوى ما زد من ما فيه أهل بدر أسألك اليوم بأهل بدر فلسجب به ولخدري هب لهم الرضا غير أجري بما يفوق ذنب قد يجري لساقر الذي قال اجري في البر والأرض في البر روض قادر في زجري لساقر الذي قال اجري في البر روض قادر في زجري بدد بهم سبل يا المجري في البر والبر والسف أجري دعائي ستجب بيم في البر والبر وأثني بهم من درري ربي يكن لي بعال بدري وغدا وما تعظم قدري بسم الله مريت بلا غف باء يا يائسا كخدي لغير ذات باقيا بتردي باع الليل يائسا كخردي لغير ذات باقيا بتردي ساق العين اسمع ذات الحفيد يفر من تفكر مع اللفيد منع المال ومن توجهي ليرى بالنبي موجهي واجهني بذكري وأدلون لوجهي لم يمن في الخلون قلب اللعين وقلوب الإثمين ولا لغير درا من حزبي قلب اللعين وقلوب الحزبين ولا لغير حزب من حزبي فلا اللعين كفر آل لغيرنا فتني عيس مني الله ونجي ولي إبليس ناديته بيا ولي عيس مني الله ونجي ولي إبليس ناديته بيا ولي نبى لغير الله قبل في النار بأعلى بعد نزول كدري دكارو كل ذن لجل علمني الرحمن بسبينا بأنني خديم ذي المدينة برأني الله لنا كناكي من كل جالب إلى المناكر أسبان الله في كرم بسا على بما عبد المبارز واني البصر دعاني الرحيم عند دومي وزعنا لي يوم يدور البلاء لله خير وسد عند قلبا لي يوم يدور البلاء كتابتي خلد البوري كفناته على المدهوري علمني العلم عند ساخرات مما يساء وكفى للكافرات لم ينهني عند البهور المغرقات داعي النامر أداء الفاسقات يسر للجميل عند المهلكات ما صانني عن جالب للمسرقات هبات من لي كان عند الواسعات هذا لك الكلل ذا ساتعات مدى لي الأنوار عند الظلمات وظالمين من كفاني صدمات سعادتي عند الإله الإلهي لزهرت عند ذوي الملاهي لم ينهني عند ذوي الغمار سوى رضا باغي له أموري تهرني الله لدى أهل الكتاب من الزباوت ومن كل عتاب أكرمني عند ذوي إسراك من خادني إليه بالإدراك ناديت بيا نصير يا ولي قفلتني إبليس عند جوالي إلى المتين إلى فتوني ولا انقداري خير العباد باب الأيادي نور البلاد أسهى رجائي أسبت همي أغرد ظلمي يجد بعلمي داعي نجاي أسبت فقري لي سند سري من خير مكري ولا إياي

أكم تدائي يا زسلائي يا زفلائي يا زغنائي فيك أنادي كل البلاد بسل عبادي بان الغماء فيك محوت ما قد جنيت فيك ابتغيت خير نماي فيك زابي فيك ايابي بلا اقترابي لك انتمائي ay kaddu yi nga xamne ñu ngi koy laaj suñu yaay nga xamne ñoy jëru ñu wañu jëm ci bëss bi nga xamne moñu fi dajalé euh teunk daar yeb daara khidmatul khadim ñi wajal magal gi. bismillahi rahmaani rahim barka seigne Fall barka seigne Fall barka seigne Fall bis mom li may wax mom wax deug yalla neexna na li ñu mën ren yalla ñu man déwén lu ko te ma nga soñu suñu mbokk jigeen ni da ngeen takku ñun ñepp liggéeyal seigne Bamba ku liggéeyal seigne Bamba lo defacc ci ko. te sëñ baam bam na tànk kanam am na tànk ginnaaw kon nag ñun bokk baay góorgóorlu bu luñ wan ren ren rek de ñaari nag ak xar ak ginaar mu demee ne yàlla am ñeenti nag ak ñeenti xar ak ginaar yàlla jàppale ñu commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim àggal ko alhamdulilahi rabil alamin bisimilahi rahmaani rahim ons bilaa bisimilah naa mbégte bu baax ak contentement bu rëy ci bés bi di bésu safar bi ñuy def di bésu Serigne Touba kontaan naa ci torop torop torop di ñaaxaat nag sama mbokki jigéen yëpp te xam ne lii yoonu Serigne Touba amul benn yoon tànk ginnaaw tànk kanam rek loo ci def ren bu déwénee di nga def lu ko ëpp ca kaw ca kanam ci lu baax jigéen ñi laxasaayu nañu takku nañu taxaw ci liggéey bi macha allah defar ba mu baax kon yal na yàlla dolli seen jàmm di ñaanal waa daara xidmatul xadim ca kaw ca kanam ci lu baax seen liggéey bi am na solo rafet na macha allah di santaat groupe waa waañ wi nga xam ne lu bees la ñu dugal ko ci xidmatul xadim macha allah liggéey bu ama am solo lañ fi def liggéey bu rafet lañ fi def di santaat Serigne Touba bu baax a baax te xam ne lii ndimbalam la ak mën-mënam ñuy sant bu baax a baax a baax di sant nga xam ne ñoom lañ bokkal liggéey bi seen loxo set macha allah ñu jël ñu def ci kanam te xam na ne mënoo mënoon nañoo xoolee neneen ci ñun bala leneen mais defuñu loolu dañoo jël lépp suñu loxo lu ñu baax na lu ñu bëgg a baax na ñuy sant Serigne Touba bu baax a baax di kontaan ci waa Caajaay di xam ne bi ñëpp ci taxaw ñëpp ci def seen ñaq ñëpp ci def seen doole bu safar gu mag gi jotee ñoom ñëpp ay bàyyi li ñu jàpp ñëw nekk ci ñu ne ci safar gi liggéey liggéeyal Serigne Touba liggéey la bo xamante amul tank ginaaw tank kanam la am santat nañu bu baakha baakha baax a baax di gërëmaat wa ci ajaay bu baax di gërëm wa khidmatul khadim di gërëm wa waañ wi alaykum barke Serigne Touba ma ngi leen di nuyu yeen wa ci ajaay yeb di leen ziar di am contante bu reuy ci bëssu tay bi bëss bi nak bëssu Serigne Touba la dañ doon def safar safar go xamne ni dañ koy waajta waaje gi bés bi moom képp kenn ku ci nekk rek am nga ci njàngat bu rëy di nga xam ne lii moom sëriñ Touba rek ko ko mën bañ koo commencé daaw ak fi ñu toll ren képp ku nekk ku ci bokk rek loo ci def daaw rek yokk nga ren ñu ngi sant soxna yëpp caajaay benn soxna desu fi soxna yëpp ñëw nañ def seen ñàkk def seen doole comme noonu ñu leen woowe woon rek ñoom ñëpp ex ñëw nañ ku nekk sa ñaq nga ci def ku nekk sa doole te li ci gën a neex nag kenn ku nekk da ngay wane ne bés bi man maa ko war a doxal ku ne côté ba nga fay féete da ngay def li nga yore jël sa poos di ko def pour togg gi neex kon nag ñu ngi sant soxna yëpp di sant baay Fall di sant Yaay Fall yi di am kontaan bu rëy di ñaan képp koo xam ne ñëw nga ci bës bi ren bu déwénee yal nañ ci teewaat te kenn bañ manqué di ñaan képp ku ci ñëw loo ci def dërëm bu déwénee yal na la ko yàlla fulal si barke Serigne Touba mi moom bés bi di sant bu baax a baax di sant Serigne Touba bu baax ndax lii moom Serigne Touba doo nga ko mën ñun kenn mënut sëñ Touba doo nga mën comme li ñuy wax rek ne liggéeyu sëriñ Touba bëri ko la ci mbartal puus mu dem puusul mu dem kon fu waaye toog di taalibe sëriñ Touba rek nanga sa loxo teg sa loxo mu yóbbaale la te képp ku juddu rek fekk say waajur doon taalibe sëñ Touba amal loolu amal nga leen njukkal ndax sëñ Touba doo nga jar liggéeyal di sant xale yi xale yi seen taxawaay rafet nañ nangoo nañoo liggéey nangu nañu ñàkk kenn ku nekk da ngay daw daw loo xam ne nii ne bés man maa ko war a def di sant suñu jëwriñ ak jëwriñ lees bu baax a baax taxawaayam rafet na di sant suñu yaay jaara mooy suñu yaay jëwriñ di sant képp ku nekk ci daara ji rek sant nañ la di sant seliir yëpp di sant jëwriñ awa jong séeréer la yor sant waa Pultoog ak seen séeréer di sant soxna Daba Diop taxawaayam rafet na di sant Ndey Fay ak waa koñam seen taxawaay rafet na di sant Jeesek ak waa koñam seen taxawaay rafet na sant Bato Fall ak seen waa koñ seen taxawaay rafet na di sant aw a jong ak taxawaayam rafet na sant Soxna Thiam seen taxawaay rafet na ñu ngi sant képp koo xam ne rek sa taxaw nga ci bés bi rek ñu ngi lay sant sant Serigne Touba bu baax a baax di wax ñun ñëpp jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba sëriñ Serigne jër jërëjëfe sëñ Abdou Karim Mbacke. waaw asalaamaaleykum mbokk taalibe yi ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen bëggee yéen ñëpp di leen jox seen waat ci waay ginnaaw ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu di sant suñ Tuubaa Xaadim Rasuul suñu jàmbaar ja moom mi waral lii lépp tey ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax di feeñal suñu mbégte ak suñu yéene saa su nekk nag moom sëriñ bi te xam ne amuñu fayam di sëriñ Saaliw doon naan du ma yërëm kuy liggéeyal sëriñ Tuubaa ndax dama xam fay ga te yéene te yéene ko ko mbokk taalibe yi nag loolu laa gis fii nii tey ñoom ñëpp ñu futteeku takk seeni laxasaay di jaayante ngir jëmmi sëriñ bi rek tax caajaay gépp manko ànd doon benn ko ci xool muy liggéey ngay gis ci jëmmam sëriñ bi ak bëgg sëriñam bu jeex tàkk nag jeex ci sëriñ bi tàkk tàkk tàkk liggéey ak yéene loolu lañ doxal ci bis bi tey lii nag liggéey góor yàlla bu nangu la sëriñ Sam Mbacké sëñ Tuubaa moo ko yebal ngir mu ñëw fii caajaay feeñal liggéeyu sëriñ bi ñun caajaay dañoo am lu rëy lu rëy lañ am loo xam ne nii bari waa nañu ko bëgg te amuñu ko muy sëñ Sam Mbacke mii ñu am bëri nañu ko bëgg te amuñu ko boo boo boo defee benn taxaw seetlu gox yi ñu wër yëpp laa lay wax nii ñun ñoo ci am Mbacke Mbacke ak njabootu sëñ Tuubaa saa bu ñu yeewoo jàkkaarloog ñoom loolu tawfiix la loolu lañ sëñ Tuubaa defal ñun am nañ cër ci sëriñ bi donte xam nañ lañu am sax waaye nañ gën a xam li ñu am muy li ñu sëñ Tuubaa defal lii liggéey góor yàlla bu nangu la sëriñ bi moom moo sàkk woon mbooloo mi yëpp ànd di liggéeyal sëñ Tuubaa وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله بالمناجي أعواته ولا قصيدتي فاخا قصيدتي فاخا قصيدتي فاخت قصيدتي فاخت فاخت فاخت قصدك في هديتي محرة كل ملك كان منعسا واحزى حملي متوكما نزاء اللحم يقول لا اله يقول لا اله لا اله الا الله يا سيدا في الله الحسن ويا محبا وهذه دعم الصباح جزاء ومنى جزاء ومنى

لك إلى أن na loo xam ne mënta ñàkk yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi wasila alquran moo ñu ko jàngal boo demee ci masaalikul jinaan sëriñ bi dafay wax ne kenn mënta ñàkk sëriñ ku ñàkk sëriñ boo yaroo saytaan dana la wammat dugal la safara fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday sayqin fa yalqa mihana li anna man adima shayqan mursila fa sayquhu shaytaanu xaysu qasada kon da ngay wut sëriñ bu mat serigne bo xamne ne ca ngay jokk waye ndax da ngay jokk ci kula neex rek dedet serigne bi jàngal na la ci kan nga wara a jokk nee na rijal rijaala qabla suhba wala tusahib ghumran aw daa rahba bul fek ab dof wala ko xamne aduna kep képp ko ñor nga jox ko sa bopp daan na wax tamit fa kullu man raayta yasta'lil abid min almasaixi fa daahu ya murid kep ko xamne dara ñoru ko dul aduna bëgg àdduna képp a ko ñor kooku bul ànd ak moom kon loolu mooy ak murit loolu mooy ak murit waaye sëñ ban murit mooy murit bi nga xam ne moo aju ci sëñ Tuuba li kulli man taallaqa bi yan naja min kadari dunya wa fil yawmi naja ban murit mooy murit bi nga xam ne moo aju ci sëriñ bi ndaxte une fois que nga jokk ci ab sëriñ rek doon nga murit waaye ban murit moo aju dëgg dëgg ci sëriñ bi sëñ Abdul Xuduus da daan firee bayit boobu daan ne jokku ci sëriñ bi niñ koy misaalee mu ngi mel ni ab wago bari na mag ñoo xam ne bi sëriñ bi di dem ci tukki gi tubaab bi da leen a nax da leen a jokkaleel ab wago ne leen yéen ak sëriñ bi ñooy ànd bàyyi wago bi Louga dem ak sëriñ bi jokkale googu nag nga xam ne da ngay jokk ci sëriñ bi fu sëriñ bi dem yóbbaale la jokkale googu naka la ko taalibe bi di amee digganteem ak Serigne Touba Serigne Moussa Ka dafa laaj sëñ Mbacke Bousso ne ko ndax nit mën naa nekk ab murit te du wax aslamtu nafsi maanaam ndax du nit mën naa nekk ab murit jokk ci Serigne bi te du jébbalu sëñ Mbacke Bousso daal ne ko waaw waaw lu mën a nekk la ndaxte jokk ci Serigne bi ñu ngi koy amee ci ñeent ba ca jiitu mooy almubaaya da ngay jaayante ak sëriñ bi bu fekkee jamononte nga ak moom nga jaayante ak moom bu fekkee jamononte woo ak moom nga jaayante ak ku jokk ci moom ni ko bi defee digganteem ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne bi fuaadi qiina lam tarahu ayni wa aqdimuhu lillahi muqtarida kon ba ca jiitu mooy da ngay jaayante wala jokk danañ ko amee ci wérdu almaquus ndaxte bépp wérdu sëriñ boo jël wérdu boobu dana la jokkale ci sëriñ moo tax sëriñ bi di wax ci masaalikul jinaan fa kullu wirdin yuridu almurida li qadrati illahi walan yaxiida sawaawun untama ila aljaylaani aw untama li ahmad altijaani aw li siwaahuma min al aqtaabi is kulluhum qat an ala sawaabi mboolem wérd boo jël jàpp ko dana la wanale ak boobu ñetteel ba mooy alxidma ak hadiya sëñ Mbàkke Buso nee na loolu dara ëpp ko solo ci jokkale murit bi ak sëriñ bi muy xidma ak hadiya waaye ñeenteel bi moo ëppati solo lépp mooy ak cofeel bëgg foofu la murit yëpp daje fi mu toll nii mën gis mourid bo xamne ne ferut ijji mën ngaa gis mourid bo xamne day waaye di rek comme sama kalaas waye bëgg na sëriñ bi fa ñëpp di dajale nak moy ak bëgg ndax ak bëgg dafa am solo yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam bu nit mësaana tu dugg ci l'islam danaan laa yuminu ahadukum xata akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wa naas ajmain kenn ci yéen gëmam du mat lu dul ne dama kaa dama dama kaa gënal ndeyam gënal ko baayam gënal ko nit ñëpp loolu xekk ma da cay nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yónni képp waaye lan moo tax ku ko bëggul sa ngëm du mat kon bëgg lu am solo la lu ama am solo la te loolu dañ ciy jël misaal ku mel ni Cheikh Ahmad Bamba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na façon liggéeykat bu ne waye kuko beugé ni Serigne Touba xel xamul kooku yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ku ko ni Serigne Touba xel aggul foofu wax na ganimtu al Mustafa wa aktafi bi fal muta kafa fan yaktafi waxna ne beug gi ma beug yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam tax na mënatumaa dara du dom du jabar du ay kër mahat mahabbatiya sayyidana sayidana al maghani wal ahlina wal walada waye wax na ne munuma lek lu saf sukar xam ko munuma lek lu saf xorom xam ko lépp lu may def yenente bi lay gis muhammadun zikruhu unshi wa mafrahati wa nur qalbi wa a'dha'i wa rahati waxon na ne aduna tamit ben banexa fi am ben muy bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam muhammadun zinatu dunya wa lazzatuha salla alayhi alladi albahrayni qad maraja agna ci bëgg yenent bi sallallahu alayhi wasallam mom serigne neena suma gisoon yenent bi sallallahu alayhi wasallam sallam di dox di ñëw ma gis ab dëkk ni ciop ci kaw ba kaa jam ñu ne ko noy def ahmadu mu ne duma ko àndale damay jël sama lex tek ci suuf yenent bi jot ci kaw lex bi daal di tege ci dekk ci ci ci dëgg bi ñu ne ko bindal mu daal di ne haddi riqayatun li hijril mujtaba an shawkatin wama yudahi aqraba عن شوكة وما maa العقرب سما لخ سما يرم دفناكم def naa ko muy wiqaaya def naa ko muy kiiraay goo xamante ne nii mooy fanqal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu ko naraloon dem na ba sax bu feebaree moom Serigne Touba amul len lu muy jëfandikoo lu dul tëru Serigne tëru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam day wër ci saase ta loolu moko bindal bopam bo démé ci miimiya mo wax ne al qadi mubna abdillah fi maradin فصحح القلب والجسمان والهمم كون توفيل لو اما ام سولو لا تي ديغنت موريد بي اك سيرين بي بوكنا تاميت تي لي غنا غاوا جوكالي طالب بي غير مو اغ تي سيرين بي وايي بوكنا تاميت تي ليغا خامتاني ني دا فاي ماي اك تعلق تي سيرين بي خصائدم ييغا خامني طالب serigne bi bi mi ñëw jamono fay fekk serigne si buñ la bëgga agalé ci yàlla dañ lay dugguloo xalwa wala ñu jox la ay wird wala ay askar yo xamne ne koy sikkar waye sëriñ bamba bi mu ñewé lépp da ko jël dëxëñ ko ci khasida yi motax mu ne khat faaxat suyuuxa tarbiya wa kull khair wa suyuuxa tarxiya sama khasida yi mbooleem sëriñ buy yare wala mbooleem sëriñ bu yobbe ci yàlla sama khasida yi rawna la fawkhana la وخاتني توصل خطي من يريد التربيه ومن لربه يريد الترقيه كيب كو خامني اغ سي بروم بي سبحانه وتعالى مولا نيور تما خس داي جاب كو داف لا يوب سي بروم بي سبحانه وتعالى توصل اقلامي الى الله عابدا بلا خلوه والله ابقى كما اعنى خس دايو بمو ام بو ني تيس خليما جي وتعالى دا فاي ريلو yenente bi bu doon kuy xàqataay sëriñ bi buy bind yenente bi lay xàqataay te loolu sëriñ bi jërëjëf seen ci waxtaanu am solo bi nga xam ne def nga ko muy melokaanu muriid bi ab murid walla melokaanoo ba am sañ-sañu taxaw ne man am murid laa boo ànd ak sëriñ Tuubaa mboolem li nga ci wax lu wér la li dalee ci mbindum sëriñ tubaa ak waxi sëñ Bay Jaxate noonu nga ko àndee tubaarkàlla jërëjëf baarakallahu fiik man damay waxtaan ci màggal gi màggal gi mooy mbir mi baas bii ci esplanade bi màggal gee ko waral màggal gi ci weeru safar la amee Sëriñ tubaa moo dem ci géej gi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar Sëriñ tubaa bi muy dem ci géej gi da cee diisoo ak boroomam boroomam xamal ko ni ko dem ci géej gi mooy tax li nga bëgg ci man ak li nga bëgg ci yonent bi ni nga ko ñaanee nga amee ko noonu sëñ Tuubaa dafa def xalootu fii ci jumaay daaru xuddoos ji fi mu ne xalootu bu yàgg la nee na yonent bi moo ma moo ma fekk ci biir néeg bi sëriñ Tuubaa mooy wax nee na géntuma yonent bi janneeruma yonent bi yonent bi daal jàkkaarloog man wax ak man ne ma sa borom nee na yow Ahmadou li dox sa diggante nga yilif jamono ñetti weer am na ne ñetti fan fi ak ñetti fan nga yilif jamono doon xutbu zamaani xutbu zamaani jamono mooy balaa muusa jàpp ji ndax tàggu la balaa taw nga yëg bala fee kenn jóge nga xam ko lu yàlla nar nga yëg fan yi dogalee nga di ko teewee lañ fay nas nga di ko fekkee loolu mooy xutba zamaani jamono Serigne Touba ni ko lii rëy na lool te neex na ma lool te sant naa ci yàlla waaye damaa bëgg lu ko tiim damaa bëgg lu gën a kawe lii yenent bi ne ko lan nga bëgg mu ne ko bokk ci waa ahlu badrin foo teggee sa tànk yow rasulullahi man ahmadul xadim ma teg fa sama bos fu sahaaba yi teggee seen tànk man Serigne tubaab ma teg fa sama bos yonent bi ne ko yàlla képp la ñuy lii nga bëgg ndax mën naa nekk bu dee mën naa nekkit yoon wa ngay jaar ba am ko yàlla képp a ko xam kon may ñu ñu laaj ko yàlla nees tuuti mu yàlla nee na loolu mën naa ne waaye lii yey tax nga am mooy da ngay ànd ak ay noon ab tukki bu yàgg ñu di la teg ci ay nattu loo xam ne ay junniy junniy nattu la dëkk bu la neex lan lay yóbbu réew mu la neex lan lay yóbbu fu leen soob lan lay fanaan loo fu leen soob lan lay toog loo waaye nag liggéey bi u lay bañ u wala nga ne lii metti na wala nga ne lii yàgg na walla nga ne lan moo tax ngeen teg ma lii nee na loolu mooy li yàq liggéey Serigne Touba ne bi yàlla de moo bind sama ruu bu ma téyilee sama ruu gi luñ ma teg sama jom attan na ko loola nga woo tax sëñ Moussa Kanaan Bamba ne may na ma dalub lislaamu sëf leen ma jóor leen ma danaa ko jaamu xam nga sëf rek dafa jafe sëf yéen ñi fas ak ñi oto xam ngeen ni sëf yombul fas dong boo ko sëfee am na loo koy sëf dootul mën a dem waaye sëf li muy jafe-jafe jóor ko gën a métti xam nga sëf dafa metti Serigne Touba ne sëf leen ma li fi ne lépp te kenn musu koo laal sëf leen ma may yi fi nekk lépp te góor yàlla musu koo laal sëf leen ma lépp jóor leen ma lépp mooy bu fi dara des danaa yenu lépp moo tax mu ne sëf leen ma ñu sëf ko ba nuppi mu ne bu ngeen ma sëfee ba nuppi gisaat ni lenn des na fi jóor leen ma ko jóor nag moo gën a garaaw jóor mooy ñu sëf la ngay dem ba nuppi ñu dala dabaat lu ne ñu jóor la ko nga war koo yor Serigne Touba liggéey bi bu ngeen ma sëfee jóor ma danaa ko jàmm daa di dolli na yàlla dolli naa ci man Ahmadul Xadim dootuma xasanu dootuma wokkatu Cheikhul Xadim nee na dootul wokkatu ak lu ko mën a mat sëriñ Touba du ko faxas lu mën a nekk ci kawam Serigne Touba nee na du ko dàq lu mën a sam ci kawam di ko mat Serigne Touba nee na ni ko ñëpp yëgee laa ko yëgee waaye man dolli naa ci liggéey bi ne duma ma dàq loola dootuma wokkatu wokkatu mooy nga toog ba yàgg sa yaram am fu xasan yàlla terewul kenn nga wokk Serigne Touba nee na man teggil naa sama yaram wokkatu ngir liggéeyul yonent bi ne dootuma yor poos duma nangu alal du ma sol mbubb ma am poos kon liggéey bi lépp Serigne Touba tukki bi yëpp yër Serigne Touba newul jaay leen ma aw ñam jëfandikoo Serigne Touba newul nit may ma ñam Serigne Touba newul nit may ma dërëm diirub tukki bi Serigne Touba lu ngeen dégg ne yar na ko fi alquran la ak xasida yi loolu mooy liggéey loolu nag bi mu amee sababu baatin سبب zahir بي ci sababu baatin bi yàlla dani ko dëkk bii nga nekk di Touba moom kenn du la fi fekk di la teg dëkk bi nga nekk di Touba yaa ma wax wajhal xarimana xariman amina wa kun bi hifdihi kafilan damina wajubu laha alxayra min aljihati assitti wa kafiha an al aafati yaa ma wax ni la sàmmal dëkk bi sàmmal naa la tuubaa kenn du la fekk di la lool kon da ngay génn Touba looloo waral sëriñ Touba génn Touba dem sanc Mbacke Bari sanc ab dëkk di xaar nattu Serigne Touba ko njëkk a def bi mu sancee Mbacke Bari ci la Touba bi ne nan dem jëli sëriñ Touba ba nu yónnee ay ndaw ne leen dem leen ngeen jëli Serigne Touba fekk am na ñuy bind ay lettre bi ruuxale naan tubaab bi moom day waajal guerre civile day korkoral ay mbooloo ngir xeex ak lu ne ñu wax leen ko Serigne tubaa xëy bis yónni maam Thierno Ibra Faty yoonu murit buñ ku fi ëpp fit neel Thierno moo njëkk a dem ndar ca kër borom ndar billahi yaay gor maam Thierno Faty yoonu murit Thierno Ibra Faty fi ëpp fit Serigne Touba ko yónni ndar jox ko lettre ne ko lettre bii ma la jox sa loxo ak loxo borom Ndar na nga ko teg ci loxo gouverneur soo demee na ko ko jox te déglu ko lu mu la wax nga wax bi Cerno Ibra Faati di génn kër gi am ci murit yi ñu ko wax ne ko ah te ngaa soppi bi yére yow kat ci tubaab bi nga jëm jërëjëf jërëjëf yow tubaab bi nga jëm te tubaab yi ni nu mel ñoom kuy jëm ci ñoom da ngay sol mbub mu yees Serigne Touba yëg ko woo Cerno ne ko Cerno noona dañuy wax ne nga soppi sa yére yi nga sol ne ko yére yi matta soppi Cerno Ibra Faati doxal téere yi li may def ci yow def naa ko ci mbub mi nga sol boo jàkkaarlook tubaab bi loo ko wax mu gëm ko li gën a yéeme premier affrontement ci diggante Serigne Touba ak tubaab bi Cerno ko tax loolu moom na leer premier daje Serigne tubaa ak tubaa bi Cerno ko dox foofa rek la waroon a xam ne Serigne Touba gañ na bi Cerno Ibra Faati duggee Ndar dañoo fekk gouverneur bi dallu mooy sieste les heures de sieste souvent direct directeur sax bu koy def kenn du ko yee rawatina un gouverneur de la république waaye danoo yee gouverneur ne ko sëñ Touba fi yónnee ndaw gouverneur bi génn gis Cerno Ibra Faati daane ko yow a kan mu ne ko man maay jaamu Serigne Touba man mii la yooyu nee na ma jox la lettre bi gouverneur bi teg ab layu ne ko teg ci lettre bi Thierno Ibra Faty ne ko soo mënta jël lettre bi ci sa loxo ma delloo lettre bi gouverneur bi ne ko tegal fii lettre bi am consultant bu ko dee ne ko mais c'est pas normal mu ne ko ah kay c'est normal parce que ki yere yim sol xamal na man yere yim sol xamal na man lu mu wax deug mbub mi mu sol ci la xamé ni Cerno bi rafat lu mu wax deug xam ngeen Serigne Touba lu mu bind ci lettre dani ko man yalla lay jaamu ku dul yalla duma ko jaamu ko tayalla mi may jaamu yo xamoko ba diko te do ko ma sa nekko ko kon li ma bëgg bëggoo ko xamoo ko sax ba di ko bëgg yow li nga bëgg xam naa ko te bëgguma ko adduna nga bëgg xam naa ko te bëgguma ko kon yow waruñoo daje ndax yow li nga bëgg bëgguma ko li ma bëgg xamoo kon yow dara waruñoo boole ne ko nee ngeen damay jihaad dëgg la damay jihaad inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa damay jihaad ci samp ay boromi xam-xam ci samp ñu ragal yàlla moo tax yoonu murit kenn mënu koo critiquer ba ci Baay Faal bii la romb sax ngay teeteelu di ko jóome critiquer mënoo koo critiquer parce que yoonu muri kenn bokk ci ku nu mën a critiquer ku la romb xamoo lu mu doon maanul ci moom waaye ay Baay Faal yi non lii c'est pas normal lu ci sa ba Serigne tubaab di wax yàlla fekke yoo la ko yàlla may sa new ci waa doonal la nga doon te bàyyi Baay Faal bi ba ci Baay bi nga romb ci mbedd mi laa wax jàpp ni bokkul ci yoon wi moo la gën a bokk ci yoonu yow ndax yéen a daje képp ci bëgg Serigne Touba te moom lu mu bon bon Serigne Touba jaral na ko mu sol yëre yi tilim yorub këll di laaj nit ñi seen alal ngir def ko ci Serigne Touba te yow defe ko kon maanul